قيل من يخدون كل غداة أو يردهم حر زهيرة آل دايد الأرض وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدنا المختار في القدم مولانا يأخذون كل قدم أو يردهم حرف غيرة أهل طيب يا إلهي واجزيا أبدا على محمدا متفقدا
góor gi bi toogaay bi yàggee sama sëriñ sama doom xaasu Malick ñëw ak Abbas dañ noon nañ fexe ba doolee yee ñi xawoon di gëmmantu ba nga agsi ma dara nag ci lisaanu xaal bi li nga xam ne moo xew fi ñu toog di la muñandiku ma jëloon ci ñetti bay te bi nga laata ñëw comme dama doon nafar nag te ñëw nga ma tari ko door laa demal ci waxat tawasaltu makka siire boo yër bu mu doon mën nañu téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn boo xasee yor xilaasu dahab bi bii am ca loo am ca loo sikki sàkka mbaa loo lëndëm li ba mu des guddi déglu rek bu baax dañu ne Moustapha mu ngi génn Makka alti parce que dañ ko wax fi yow mi yi la alami am na fu Maodo fawe altine moomale ko nëbbi lu ko jur dañ ne ci la ñu jëlee leer gi ci ginnaaw Abdallahi dénk ko sunu maam di sunu sang xamit leer gi altine la gane àddina leer gi altine la sar leer gi antine altine lañ ko takkal garaatu yonent leer gi altine la génn makka altine la dugg mi diinatul munawara altine la riñaan gi seen teg yàlla altine la ruuga dem ajjan ñëf tudde ko fi yow mi la xaalan foofu nag sew sew dafay am nabi mu ngi génn capital yi màkk altine waaye si daaj Maalik kat digte nañu ne li waral Madiinatul Munawwara teeru ñetti fan gisuñu ne bi retard baa ngi ci bi mu départ ci capital ndax bi mu départ ci capital bi rek continué wul def dafa làqoon ci tool yi ñetti fan wa qarra jiima layaali fii mu'tarima bi salaasati ashar baraa Ankuboot wa Turaab génn na biir màkk altine ànd ak si di abi bikri làqu ci xaari iran ñetti fan wa xarra jiima layaal dafa nag altine lu ci tegu lu tegu ci talaata lu ci tegu déglu rek si daañu bari radiyallahu taala wa xarra jiima layaali mu ngi ko wax ci ci ci jëkk njëkki way ya jëkk ci wa fi sëkki wax naa la sànq ne nga wax na leyla al aruba wax la yowma al aruba jàll la fële fii mu ne hël la jim la mara mooy firi arrivé mooy mooy firi départ wala la an kataba allahu alayhim jala la daba boo dindee nag tomb bi mooy firi arrivé si daaj Malik da ci juddu ba leylal xaruba xalla albadru fi rajab ca teeru ba mu ne yowma arubati jàll albadru ci xalla la ci jàll la nga gis nag ni Moussa Fall on Medina ba ñu dégg ne ne bi départ na dañ ko teew xob gileem yëpp sàdd leen fooraat tabale yëpp ñi am tàndarma ju rafet ñu di ko wis ci mbedd mi ñi am doole sax léeg-léeg ñu rotal ribi loor ñu teeru ko ba midi gisuñu ko ñu ñibbi xëyaat teeru ko ba ci ëllëg si gisuñu ko mu ñibbi ndekete capital bi la ne bi génn altine waaye mu ngi quitté tool yi alxames àllarba Madinatu Munawwara capital ba du dugg ajjuma mais banlieue ba mu ngi fa dugg mu ngi fa dugg ah al capitale Médina na bee nga fa dugg ajjuma di nga dégg léegi si daal jumaa léegi wala ko banlieue ba la arrêté la ak si altine kon nag safaana booba tax mu xamal la ne yax doona kulla xada dégg naa ngeen di rafaa la ma rek xoolal classe am yaxduuna noo def sa lamaru kulle jooju kon kay doy na way kullu yax doona ahlu taayib bi da daan jéggi lu gudd si daaj maaj grammaire moom boo koy xool ak elmu isaab ci xilaat bi nga xam ne góor gi du morom kenn yax doona daan ne xëy suba teel loo ci teg jéggil nag ku la jooju demal ca faay ji nga ne ahlu taayib waa Medina nga dellu si waat nag ne ku la xadaat bu ñu xëyaan kenn du ñëw nga kenn du ñëw wax nañ ñibbi ndax di seen tur ak pàkk góor gaa ngi ci yoon wi xam nga lu leen daan ñibbiloo xaru saahira général bi leen wax rompé wuran mooy jant bu tàng ba kenn mënatu la taxaw ku nekk ko bokk say tabax gàdduwaat say xiin delluwaat kër ga toog xaaj Malick ne def nañ ko ñetti fan gisuñu Moustapha fekk retard baa ca xunta ma mu duggoon ñii ñetti wax la ñu wax tànk yi ku oyofoon der la ku rafetoon la ku fiin la ut ne bi dafa fiinoon ci ni maam du bind ba muy génn génn fitna xeer ya mu jaar moo laal li dëggu tànk ya Ababacar nag làq ko fa uti katt jàmtaade di ko tàngal di ko màpp ba mu sax ne nañ looloo waral ñetti far ji ñu ne déedéet Sidi Ababacar daf ko noonu bi may génn mënumaa génnaale sama koppar foor te sama alal du des ginnaaw ngay am soxla làqu fa nag oo doomam ne ko nag ma indil ko parfor ba fii Maodo limal ne la ko ni mu rawalee ko parfor bi ba yëpp ko nebi foofa nee nañu looloo waroon ñetti fan waaye daa waxar sax na fii ci biir xuntama jiima la yaay tungal suur lu mu làqo woon ñetti yëf bi raa li ñu wax dëbbatuun an ko bóoti ak lënd mu jargañ ak nag warqul ummi pitax daf ci daal di daf ci daal di lënd jargoñ def fa lënd pitax daal di fa nen ba ñuy topp tànkine bi ba mu réer leen ba ñuy accee ci kunt bi dañ ne kii bi fi jargoñ bi ñëw booba Moustapha judduwul sax waxuma mu mën fee dugg boobu ak léegi foofu nag la ab jibikirin xaw a tiit ne ko dinañ ñu gis de mu ne ko la tooja ina la ma ana foofu la rawee Sidna Moussa dangale nañ leen naa sidna Moussa ba ko fi aw na sëkkatalee ba mus géej gi rekk fi sës su gestoo muy xare boo xam ne mënu leen a dénku bu avancé muy géej guy ginnax te xamuñ ci dara waaye mu sukkandikoo la ko yàlla noonu demal maa ngi ànd ak yow idhaba inni maakuma asma'u lu ñu wax wa ara lu ñu nar dinaa dégg lu ñu wax sama nopp neex na xam naa lu ñu nar sama walloo gën a gaaw melax loolu rek la Moussa def kat arma nga xam ne yéen a am fit ñu ngi ko naan inna inna la mudrikuun mu naan kala du ñu agsi xam nga tax inna maa rabbi sa yahdini inna maa nag saadis la woon ndax boppam la wax léegi te mbooloo la àndal rabbi yi dafa sax pour yàlla yàlla tudd rabbi yàlla ngi tudd allahu Moustapha nag moom daf ko noonu laa taasan inna allah maa ana fàttewul na ànd naa kenn fàttewul turu yàlla Sidi Haaji Malick radiallahu taala anhu yàlla nu ko yàlla fekk di dem nañu bi purit yi naari góor yi firawna yi ñu ngi dal ci sàlligati Moussa yi yàlla di ko déglu rek gars yi naan ko inaa la mudarikun mu ne kala inna ma'iya rabbi sa ya diini ci rek isaba ina maakuma asmaho wa ara ca tax moom la def rek ar nga ndamu tool nit yow nga sas ko ci géej mënu la wëlbatiku te yàlla ka ku bari orma la ku ko am sax moo la ko jox Firawna li muy tax a gudd fan six cent quarante ans la dund quatre cent yëpp chef d'état la déggu ci lu ko naqari gisu ko jiggaaniwul dara waaye nag bu ko gars yi musee tawat yàlla yàlla da leen fu may jaar ba jëfanteeg moom suma tur la suul buntu ko suul suma tur la bind suul ko suma buntu këram jomba na maa jigi tur woowu fekk ko ci pale bi xam nga kañ la ñuy jote waaye du doon foofu benn bés la ne Moussa cokkaas ka daw mu dab la ma dab ko bu ma ko see ci géej gi ñu ne monsieur inaa la mudrikuun mu ne kala kala ina maai rabbi sayahdin foofu la ko jibril tar wersu ne ko idri baax sakal mu ne ŋaas set bi ne ko ci géej gi taa géej gi gi nax purital sànni ciy tànkam gars yi ne ko inaa la mudrikuun mu ne ina maai rabbi sayahdin jibril rombaat ko ne ko idrib ban sàkkal baax mu dóor yet wi ji ji gën a fuug ñetteel ba nag la ko ne fa salli alal muxtaar mu ne allahuma salli ala sayidina muhammadin nabiyil ummi ne yet wa taa ca géej gi fan falaqat fa kaana kulli farqin ka tawdil azim wasrafna samal aqarina wan jay naa moussa wal maal bàyyi laa ci maa ngi ni ñeenteeli fane teeru bi bi kay xaddi bi ñibbi na la benn yaxu réer la woon gileem yéeg ci taaxi kaw di ko séddu seen leer yi nabi ndax boobu na bee ngi rombanteeg subayru ak abbas ñu def woon commerce ne ko naaj bi tàng na mbaaral ko mbaar mu weex weexaayu mbaar ma leeraayu Moustapha jolli jant bi leer yooyu jolli te xam ne borom bi nee na la allahu nuuru samawaati wal ard masalu nuuri yi Moustapha ngo kamiskaatin saa mis baaxoo المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب درر يوقد من سيدة المباركة nga xam ne laa farqiya amul keroog suba wala xarbiya amul keroog ngoon garab gu la gën a sax ci naaj moo la gën a ferey doom moo tax yàlla di melal garab ga ne amul keroog takkusaan amul keroog yor yor si daa aji Malick nag ne quatrième jour ba ñu ñibbi yow boobu doon séentu fasam wala gëléemam gu réer moo seen nëb Maodo ne mu ne leen taxabalu saata yawmin saata yawmin ilal buyooti la waaye mandarxay woy bi ak garaam bi moo tax si daaj maa yow romb ko gis nga fa dee mu ngi fa def ci place yi bala nee naa la rabbun tabaraka aw rabbun aw yooyu yëpp bal la rabbun tabaraka bal rabbun taxaddasa bal rabbun taala wulu wóor rab yàlla si keroog ci sa kër maa ngi tooñ si sa jër njàl na ko si dañ maari alxuraan juróom-ñeenti kukk la rab juróom-ñeenti couleur ci la rab ba alxuraan dañ waaye rab bin wu ci nekk maw defaat na maw defaat na kukk ba rab ci béyt ma ne ko Jóob Njaay keroog kat lañ la seet si ñu ngi ko saal di waxtaan rek waxtaan yu fort ma ne ko Jóob Njaay seete rek wa rahmatullahi kullal xalqi xat wasaat ma ne ko lu ci tegu mu ne min fajiri ma ne ko ak lan mu ne moo tax ma ne ko nag jàngal lam yàkku na li si nekk furu moo bayt booba tax ko waaw bayt boobu mooy lam yàkku na li si nekk furu joom njaay ngi dafa ne Ibou Sakho yow daal yow ma nga ma tey nag mboolem ku ku Sidaaji Malik bu alquran Sidaaji Malik robb na ci ci ci ci ci biitam ba mu daj gis nga alquran day def buy tudde lu bon da ca yàq da koy tudde rek dem ñàkk pexe tax bu tuddee lu baax nag dina fa def ab diir ab diir door a jàll ndax lu baax dafa baax te neex ma ne inna alladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi niiri jahannama xaalidina lu ci tegu fiha ah bul wax abadan de amul abadan de boo waxee abadan gaa ñu de إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نير جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية waaye ba mu demee àjjana nee na illazina amanu wa amilu salihat loom jannatun tijri min tahtiha al-anhar xaalidina fiha abadan abadan abadan dafa neex ta baax kale amul abadan moo tax Maodo bi muy tudd yéefar foofu benn yoon la ko tudd dem min fajibi na pat ne muti teg ci saahiri teg ci baari seete loolu rek kooku moo di moo tax loolu lam yegg ko ni taqabaloo tas nañu maw day wax chaata yow min benn bésab altine lil bu yoo tey jëm Madinatul Munawwara xaro saahira fa lañ daan taxaw taxaw nañ fa ñetti fan gisuñu ko ba ko ñeenteel ñu rampe nag di ñibbi ndeket waqat raxa xatuk taqiq la gis na fail ak maful nag amul droit taqdimul mafuli an alfaili du dul li rutbati wala li aham wala li tartibi si daaj malik rocci nag yowut bi moo gis mooy fail di moom la ñu war a jiital ku mu gis nabi dina béy maful moom la ñu war a mujj mu sànni fa la yowut ba na taxabaloo saata yowmin lil buyuti waqat raxa nabiya dara wax yahudiyun alal xutami taqadimul mafooli anil fayl ñu ne ma sidaaj Malik ba yowat ba séenee Moustapha te jullit yi di ñibbi lu mu leen wax mu ne xam naa la mu leen wax dégg naa it la mu leen wax xam naa it nagaaya mujjee def taqabaloo saatu yom waaw
أبدا أبدا حتى محمدا المختار في القدم ناداهم خائرا قد له جدكم خاموا إليه سراء موضوع بلتي تما dina remplacer fii fii dina ko remplacer ey waa Medina ya doon ñibbi defe ne sooy nañu ci seen teeru te moom mu seen ko mooy leen xat laa agsi na feeñ na juddu ko moom seen gan nga seen sanga bi seen ki ngeen doon teeru li ma seen ci àll bi leer yi ma seen ñu jàppante ko suuf muy perkal ba ko subayru muure ak leeru boppam ji siidit wujudi ak leeri njonooxi màkka ya ñoo midina ya ñoo toftale mooy leen xad laa jëdd ko moo bu leen ñibbi gan gi ak si na si daa ji nag te saasa xamoo la ñu dal di wëlbatiku siraa am di torote dawal ñoom ñëpp maasalaay ihi mi ànd ak yëkkati jaal jaal si nag di jëy sa fi salaa ihi mi ànd ak jik nabi nag kaar mu ngay temp ndànk di temp sida bi ba ka gars yi di ràmbal si daal ji maa ngi nekk fi ñu daje juste xam naa fi ne bi daje ak gars yooyu juste xam naa ko xam naa lii yëpp te alquran lii la gën a fonk ci jëf-jëf li xew ci lii néew na mu tudd ko day tudd lii ba rek waaye du wax la fa xewoon ñu ne Maodo fu mu daje gars yi juste la ko جزاه الله عنا خيرا مولانا سيد حاج مالك لاقو مدينة دجن يهوب ak nabi ci naqlatin ci genn taati tàndar ñu ne mënu la nekk parce que tàkk du sax garab te Médine di gépp tàkk la woon kon bu moo doone ba muy jàkk ba muy dàkkaroo gaa yi ba muy dajeeg waa Médina ci genn taati tàndarma la na muy mën a amee ñu ne gentab borom barke bi jëkk si sañ ci Medinatul Munawwara moo fa jëbbatoon tàndar mooy ñu nga dajeeg nabi ca taati tàndar ba ko sës xam nga nuñ ko yób nu yow xaayir ala fadxula la taxaafa charrasil waxami ku jëy si baat si rek na sa jaat yi njas ba nga def ne daf koy dóor mu teg ko ci dënnam ne ko Moustapha yaa ki nga àndal laa taxaafa fadxula laa taxaafa sore ci waxam yi rentré ànd ak xel mu dal bu leen xalaataat ci kenn koy tooñ ku loxom di ak si ci yéen boo gisee wax loolu jàlla juróom benn pinc amoon boobu Medinatul Munawwara chef de quartier bu ne si daaj ma li tudd na ko tudd la mu waxanteeg moom ba mu koy traversé parce que nabi première pinc mi dina dalu ca troisième pinc mi ca la dal te pinc mu mu romb am nañu ko wax ak moom chef de village bi wax na ak moom ñu ngi ko dogale ci génn taati karam si daal ji mari ne la ko seen jàmmanteeg moom mooy alaa yëgal ne la taxaafa bu leen xalaatati sarro si waxami ayu tappaasu borom ak mbañeel ku ñu doon tiim abbas di la tëru pour gànn ay gor yu toll noonu ñu ëppaleen lu nekk dogal la boo dee ku yàkkamte wala ku sant siise da ngay dal di gaaw ci peelu waaye sallallahu alayhi wa sallam takk na lu yàgg di xaar ndigal gis nga Basir Diop dafa am as asku dafa am lu ñuy wax Maodo def na ko ci bunt bii suuratu Taha moo dëpp ak bayti bii moom itam ndax wal badru ma ala anhaar su ma xat faba su ma xat ah wal badru ma ala anhaar su ma xat wasaba saat walam tanha wal jaau lam yuqmi fa basartu bi ma lam tubsiroo xabdatu xabdatan min asaari rasuli moo dëppoo ak bayte boobu dafa ndax bi nga xamee ne ñu ngi ko dogale xar mbedd di tëgg tabale yi naan ko wàccee fii bu ñuy wax Medina fii tax fii la jàmbaar yi nekk fii la borom yi nekk sallallahu alayhi wa sallam baay alaaji Malik nee na na fi ku mënoon a war kaar ku jékkoon lépp la waaye ut ban ibnu malik moo moomoon bani bani Saali moo ko jëkk a dogale ne ko wàccal la taxaafaa sa rasil wax xam ni Maodo ne mu sëgg am lu mu ko di ñu sëriñ bi kaar ñi Abbas waxoon sànq Alaaji Muxtaar wax ko ñëpp yal na ko fi yàlla yàggal man bëgguma ñaane gunge nu ba ca kanam ku ma wax yàlla nag nu gunge ba ca kanam doog ci dégg waaye maa ngi lay muunu ba ca kanam mooy firi lan ba ca kanam ma ma def naka waaye gunge ñu ba ca kanam waaye bu ñu demee ba ca kanam ma def naka nag da nga naan ko fi yàgg fi rek yàgg fee yàgg yàgg yàgg yëng na ku ma ñaan lay sëriñ bi yàlla nga gunge ba ca kanam rek doo ci dégg waaye naa la fa parce que yow da nga naan ba ca kanam mais ma wàññeeku yow nga continuer alaaji abdou asis si yàlla na fi yàlla doole yàggal si ngat mas naa laa wax lu ma tiitu dama ko noon ne koo digaalee ku mu doon ak lu ngeen mën a digaale soo ko yi soo ko baalulee topp ko ak muy taalibe muy doom muy jarbaat muy de muy koy wetti ko koo digaalee ku mu doon soo ko baalulee bi lay topp ko ak seetal at yi kaar bëgg rek kaar te man xam naa ne rufiya anu taklif min min samaanin bii yàlla toppatu ko dara yàlla bañ naa topp ci dara ñett yi fa koy maye am na ñu koy judduwaale muy gara am na ñu xam ne ay at a koy maye ak loo xam ne laago la boo xasee bopp yàlla toppatu la dara boo amee quatre-vingts ans yàlla toppatu la dara boo dee wala yow judduwaale yàlla toppatu la dara nag kooku moo gën a pire yooyu ñetti kaar am naa yaqin ci guddi gi toll ina naa seeti lii la iya su du waxtaan waxtuwaamu xii la ina lëkk fi ni yuri sab an tawi la xam nga na ngay def waskurismi rabbika wa tabatili tabtila xamula kooku mooy rabbul masrib wal maxrib laa ilaha illa hu fa taxisu wakila Maodo wakila xam nga lan la wakilu mooy allahu mooy allahu calculel wakilu c'est-à-dire yàlla jox soixante six bis mu jëli lu mu doon soixante six kon fa taxisu wakila allahuma aqasnaaka wakila fa taqabal lana bi barakati wa bi jëndi fiqina fi ljalisi way jëm wa bi urmati jamiil awliyaika yàlla na fi yàlla doole yàggal si man baal ma am na passage boo xam ne di ma baal rek Adama loo dafa musa wax sa papa si daañ Maalik ne ko Maodo ndéem da ngay nëbbu génnal ñëpp a gis na la maa gën a boni bët te gis naa la dogalee ci baatu sëriñ bi ñaar fukki fan ak ñeent ci ajada centenaire dinañ fa màggal rasulullahi niñ ko daan defe sama nga nag sëriñ bi man nag na leen wóor ne Maodo ku ma xam-xam na lool foo ma séen sa ndigali bàyyi la loo ma dégg sa ndigali bàyyi la man waxoon naa leen ne kër gi duma fi taalibe jaam laa fi sama papa moom ma wax ci gémmiñam ne ma alaaji Malick yóbbu ma fa sama bopp alaaji Abdou si ca téye sama loxo jox ma ko alaaji Abdou magam mu jaamal ndeyam ak ndey limaan sax ko bokk benn ndey benn ndey sama papa teel a mokk alxuraan réer yaayi alaaji Abdou nag di yedd alaaji amula lu jenn rakk mu réer ci réew mi bu ma doon góor ba alaaji Abdou ne ren de sama mbéy mi parce que rek laa ci génn du ma toog mukk te xama fu limaan sax ko di ñëw ba fekk ko tëngeñ ne ko nag fi ma la fekk mënuma la yóbbu sama ndey waaye dinaa fekk ci loxoy koo xam ne moo demee nelaw indi ko ba ci siidaay bi ma di bàyyi ko ci loxo kooku dafa yàgg e man nag kaar xaw ma kan waaye ñu yàlla baaxee kaar ba ma xelmati la mënuma laa gis ci la sa barke bàyyi la nag ak nag sama bàyyi jeex gu mu jeexoon ci sa jeex gu amul lim dafa am benn waay bu ñëw ci sa papa tubaab am lu mu ko diis sa papa ne ko àndal ak Ablaye Mbaye mu nga yëg ngeen dem ba ca Idrissa Diop ngeen ànd ak moom dem ci Ibou Sakho ci Tëngéej waa ji ñëw ba Tëngéej ne ko sëriñ bi lu mu nu yebale Dakar ci Ibou Sakho Tëngéej la dëkk mu ne man kat sëriñ bi daf na naa dem ba Ndakaaru ànd ak Idrissa ñëw ci Ibou Sakho yow booy wàcce wàcce man duma wàcc lànk xam nga lu xew waa ji wàcc dugg néeg Idrissa fekk maa nga fa toog déggul ni ma wax sax billaahi noonu ma sax noppi sax ma daal noppi yàlla na la fi yàlla yàggal ñu daje woon ak si daaji Malick billaahi yóbbul lu ñu dara ñun ñu daje yow billaahi bu baahi bu baat nu ngay ñaan yàlla dool la fi saxal ak sa njaboot gi ak sa doom yi ak sa jarbaat yi ak sa tàll yu baax yi sell yi wen yi nee naa taalibe tiijaan kaar lu mu ñaan lu yàlla bu ma gémmiñ jàpp xamul li muy ñaan yàlla bu ma gémmiñ jàpp moom la ñu war a wax yàlla bu nu gémmiñ jàpp bi ormatu seydil wujjoodi man nag ndigal li ma joxoon ci ma wax alquran ci olof dafa àgg ba ñu d'accord jéem koo teral ëllëg ci tëngéej moom bokku ci Maodo mii